fii ci Gambie sa dëkk sa réew sa lépp nga gis tey ni nga tondoo xalifa bi ban kàddu nga am pour jox ko àdduna bi. waaw damay waxaat alhamdulilah santaat yàlla julli ci yonant bi sant Cheikh Ahmed Tidiane mboolem sant maa ngi koy santee ki nga xam ne moom ma fekk ci lëndam dugal ma ci leer muy Mawlana Cheikh al Islam Haaj Ibrahima Niass maa ngi wax ne Gàmbi nañu wax alhamdulilah am nañ gan goo xam ni moom rek mooy gan ci àdduna bi muy Mawlana Cheikh Ibrahim Cheikh Mouhamad al Mahi Ibrahima Niass kooku nga xam ne tey mooy baayu lu baax lépp ci àddina ndax damay wax ne Mawlana Cheikh Ibrahim mooy bàyyi la solution solution àddina bi moom la luy wane loolu Cheikh Mahi tukki fi dem ci dëkk boo xam ñaar fukkaat ak benn ay jullit la ñuy rayante laata loolu sëñ Maamun dem ba lijeenti fa lo xamne lu mel nonu la waye Cheikh Mahi bam ñewé dafa defar lépp au président président bi tok ak mom mu ol chef de rebelle génn nit ñi nekkon ci prisonniers yi koku moy Maulana Cheikh Mahi ibrahim Niass. waye damay wax ne dañ koy tiitaroo ci kan Cheikh mohammed al Mahi moy ki ñi tiitaroo moy doomu baye la rek yemu ci waye dafa nekk borom xam-xam bo xamni li baayam waxoon ne xam-xam moy lépp. loolu la Cheikh Mahi def ci boppam moo tax tey ñëw gii mu ñëw fii ñëwul dara ndax su fekkee alal alal daf ko fay fekk su fekkee nguur nguur daf ko fay fekk su fekkee daraja moom waxatuñ ko ndax bàyyam moo moom àddina bi kuy ut daraja ci Cheikh Ibrahima Niass nga koy utee soo ko utee wut ci moom doo ko am kon li ko fi indi bëgg a xettali jaamu yàlla yi bëgg leen yokk ndax ñun ay tijaan lañ أي طالب مولانا الشيخ إبراهيم لي واي زيارة زيادته زيارة رفينك يوكو تشنون تسوني ويغن يو يومبل نيوكاي زيارة وقت دغ يالله لولو دافاي نيه نيه نيه باغا خامن كين مونو مكو واخ موتاخ من ادم بارو موشي لي بريزيدان ماغ لاي واخ نالا امغا غان غو خامن سو تيغون گلم ديكو ريندي دويوت سو تيغون اي كيوي ديكو ريندي دويوت سو اندي وون ناي دويوت سو داجالي وون علالو ادنا بي ييب انديكو دويوت parce que lan Cheikh Ibrahima Niass la Cheikh Ibrahima Niass fii dëkkam la ndax desoon na tuuti mu juddoo fii sama maam El Hadj ba muy xeex ak tubaab yi suñ ko sonaloon fii la doon ndaw dugg si ci biir Gàmbi gi moo tax nit ñu bari ñuy wax Cheikh Ibrahima Gambien la waaye Cheikh Ibrahima sénégalais la waaye doomu maam El Hadj Abdoulaye yu bëri fii la ñuy ut see kayit. bëri na tamit doomu Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Mahdi fii lay utee kayit ndax fii la juddoo kon na xam ne yàlla may na ko ngëneel. nga ne loolu nag na ci profité profité bi mooy su bëggee réewam bii nekk ci jàmm yàlla jox leen koom li nga xam ne mooy ci oorak ak pétrole ak yëpp yàlla am na ko mën na ko na ko ñaan Cheikh Mahi ndax su ko ko ñaanee wallahi alazim su ko ñaanee dafay sotti yàlla moo leen defal loolu kër Cheikh Ibrahima Niass duñ wax ak yàlla mukk yàlla di bañ loolu bàyyi liggéeyu ko ndax bàyyi nag moo waxoon ne dégg nga xaasiman wa muqassama yàlla moom la sedd muy seddale mooy kan yonent bi lay wax waaye ñun duñ fàtte ne bàyyi day junj ci yonent bi waaye boppam lay wax ndax Baye moo wax ne su yonent bi doxee mu dox su taxawee mu taxaw ma ne ko bàyyi loolu ñaari nit jëmm mënuñoo ànd benn jëmm rek mooy nekk moom mooy dox takkandeer ndeer bi di ko topp te su taxawee takkandeer ba topp taxaw kon koo kookoy Cheikh Ibrahima Niass kon ñun lu ñuy jëlee Kaolack jëlee ñu ba Dakar ñuy daw ci naaj bu tàng bi déedéet xam nga lan lañ bëgg dolleeku ak barke moo ñu jaral loolu waaye gisuñ ne sëriñ bi suñu mag la sëriñ bi suñu baay la déedéet ñun luñ gis ñun ñooy jaamu sëriñ bi ñun ñooy mbaamam ñun ñooy lu gën a bon ci moom waaye ñun ñooy ay taalibeem suñ mënoon a tëdd tey ci kaw tali bi sëriñ bi di dox suñu kaw dañ koy nangu taxaw sëriñ bi di dox suñu kaw. internet bi Baye ak Facebook ak YouTube àdduna bi di la bàyyi xel waxtu bi ñu toll yaa ngi bi ban message nga am si ñi nga xamante ne xamuñ Baye mbay respect nekk ak Mawlana Cheikh Ibrahim waaye jël boppam def ko taalibe bés yu mel nii tey nga wane si njambaar gu mel nii tey ban kàddu nga am pour ko waa internet bi. waa internet bi daal li ma leen di wax Baye Mbaye daal mu ngi nii du soppeeku su jàkkaarloo ak écran day xaalu day wax ci kaw waaye nag su nekkee moom kenn ku am kersa kuy sëgg la xàmmeewul nit ñi waaye xàmmee naa nag doomu aadama su ma joxee loxo nuyu ma dootuma ko fàtte mukk waaye nag ci kanamuk écran damay xaalu ndax tàngoor gi nekk ci man la ndax mbëggeel gi dafa ëpp ci man ba nga xam ne su may wax doole sax laay waxee su may wax sax duma xam lu may wax ndax mbëggeel gee ma ëpp doole waaye lu ma leen di wax rek dara soo waralu ko lu dul bëgg cheikhul islam laa bëgg ci sama bopp Bañes point Bañes rek keneen ku mënti doon bëgg naa la ngir bàyyi keneen ku mënti doon moo xam muqaddam moo xam muy taalibi moo xam ku mënti doon nga bëgg Baye bëgg naa la ngir Cheikh Ibrahima Niass waaye boole naa nag nit ñu baax ñëpp bëgg leen waaye baay moo fees ci sama bët Baye mooy sama nokki Baye mooy sama gémmiñ gi may lekkee Baye sama ndox mooy sama lekk mooy sama naan moom lay fanaanoo moom laay yeewoo ndax Baye emale moo ko kenn parce que yéenant bi yemalewu ko kenn moom Mawlana Cheikh Ibrahima waaw. message bi Kossy lu may wax saa su nekk rek suñu télé ñoo ko moom. tey yaa ngi ni ñëw Gàmbi di ko def direct àddina yëpp di la seetaan waay waay ngalla lu may wax nu soo amee dara doo jéggiyaan feneen di ko uti moo tax ci waxu daafuur bi ma waxoon ko ma ne taalibe bàyyi nañ ñëw ñoom ñi def affaire teleeg yooyu ñu booloo ñu dëgëral yi ñu am ñi taxaw li ñu am bàyyi di ko wane ci àddina bi parce que bàyyi moom rek mooy wërale ci àddina bi ñu koy wane gannaaw am nañ Kossy TV nañ leen jàppale Kossy TV nga xamne lay xew Amérique dem ci goudi mu koy génne la xew Asie mu koy génne la xew Sénégal gi la xew fenen mu koy génne kon Kossy TV ci kanam kon turam barak muy Kossy Mawlana Cheikh ibrahim assalamu alaykum wa rahmatullah Cheikh Baye mbay ñu koy ndokkeel bax diko ziar diko ko wàccee wàcc waayam liggéey bu am solo bi nga xamantene mu koy liggey Mawlana cheikh Islam Haaj ibrahim Niass Baye ñu ànd ak yéen inshallah si neen yaatal si neen taalibe yi seen réaction yi fi ci hôtel bi inshallah Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak gaal yéenay liggéey fay du baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay du baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV